dal leen ak jàmm ci suñu chaîne bi di suñu gox TV ñu ngi leen di nuyu bu te di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen ñuy del siwaat ak yéen nag ci suñu série bii di la polygame la polygame nag doon na boo xam ne série bu neex la série bu yëngal Sénégal la macha allah di leen wax nag ngeen di abonné tey bés cloche de notification yi ngir ngeen di mën a jot suñuy vidéo comme ni ngeen ko bëggee chaque jour ki nga xam ne nag moo di Thiam daw na di ñëw ci bàjjen daw na nag daw yu métti bi mu egsee nee na nag dañ ko dugalal benn envoi te dafa dem nag ci numéro bàjjen léegi nag bàjjen nee na ko ah, xaalis bi man jotuma ci ki ma envoyé xaalis nekkul envoyé xaalis ba ñu xuloo fa nag ba bàjjen ne ko damay rocc rek jam comme ni ñu koy waxee napp na fa ba nag napp na fa maa ngi jéggalu ki nga xam ne moo di càmm nag napp na ko fa ba nga xam ne daanaka ñoom ñaar xaw nañ faa xeex ki nga xam ne nag moo di Thiam dem na nag bàyyi fa bàjji ndax bàjjen da ko waaxu Ndeye Ndiaye nag ñëw na ci ki nga xam ne mooy borom këram bi di ba di ko wax ne ko moom ci xadi baaba dil bi mat na ndax dil na ko ba mu set wecc kon nag na ko cër wàllam ci xaalis bi te ba nag nee na ko xadi baaba a joxaguma xaalis ndax nee na ma xaalis bi dafa nekk marché jota guma ci te nag li ko ba waxit nag du dëgg ndax xadi ba li mu xadi baaba nee na ba li nga xam ne moo di xaalis bi yow doo ci laal dara ndax yow comme xale bu ndaw dangaa neex a manipuler dërëm doo ko laal ba Ndeye Ndiaye nag mer na ci lool ki nga xam ne nag moo di Khady Baba nag yaakaar ne dafa am ndam dafa am victoire ba tax nag mu ñëw ci asu di savourer victoire am noonu nag asu nag bi mu ko expliqué ba pare xamal na ko ne nag dangaa jàppoon ne dangaa am victoire waaye défaite bu rëy nga am fi nekk nii moom yaa nga ndox ma dangaa daanu carrément nga def ndax Ndeye Ndiaye loolu mu def toog sa kanam ba di ko xas mu ne pat waxut war ngaa xam ne loolu kon Ndeye Ndiaye ak ba dañ laa teg di loolu moom yow war nga kaa xam bu baax a baax xaj baaba nag nee na moom jàppoon na ni warta mën a daanu nag ci kanamu Ndeye ak ba waaye nag buñ ko ca delloowaatee bu boobaa dina neex te du jeex ndax fi mu nekk nii fas na lay nii ne beneen biir nag bu gën a rëy bi mu leen tëggal ba am ci defet ki nga xam ne nag mooy ñëw na nag fekk ki nga xam ne mooy première dame mu toog di sën mu ne na ko nag sañ-sañ nga kaf nañ ree après nag ci lañ indi waxtaan bi nag jël ko au sérieux mu xamal ko nag ne ko ki nga xam ne mooy ba dañ ko tuddee ay soirée mu war caa dem léegi nag sën nag loolu nag da cee mer lool loolu ndax nag bi ko ki nga xam ne ñi nga waxee da ko ay da koo jàpp ndax mënu koo gëm ndax ba ñàkk na jom ñàkk jom goo xam ne irresponsable na jéemut a gérer dara ci këram gi ba pare nag mu ciy dolli ñu koy tuddee nag ay soirée mu fay dem di baatale ak lenn lu nekk mu di ko def ban nag seen mère nee na moom day génn ci ba carrément ki nga xam ne nag moo di bàjjen ak binom borom tànn biir gu neex gi moom nag fi nekk nii moom ak binom dañoo nekk nii lii di consommer seen mariage di ànd nag di sànneeku te def la leen saf tey dañoo demoon sport di def seen i sport lañ doon def ni gis nga leen ñu def seen ay ensemble yu rafet macha allah di def na seen eh, di binom nag dafa tegal bàjjen lu xat tegal ko lu na sonn na ndax li nga xam ne moom la ko binom di def loo da koo mënul ndax bàjjen ku ne xam na ne lu metti moom ñemewu ko dafa sonn fi mu nekk nii lool lool te taxul nag binom bàyyi ko binom nag commencé na nag eh, di ko expliquer di ko expliquer buñ jógee fii dañuy def lii buñ paree dañuy def lee buñu paree dañuy def lee nii la ñuy jaar nii la tourné bàjjen commencé di ngank yére yi sonn découragé lool lool lool ndax dem ba nga xam ne mënatul dara dara dara te ñimeetu la bàyyi ci la binoom nag expliqué ba ci yàgg nag ba wan ko ginnaaw rek bàjjen ne fes nag ndaw binoom gisatu ko ba binoom nag taxaw nag daal di jaaxle lool lool lool ndax li nga xam ne nag moo di bàyyi ndaw yim ndaw bàyyi ko fa jaaxal na ko lool lool lool li nga nag mooy seen woo naxari baaba nag di waxtaan ak moom expliqué na ko nag ni ko li nga def ci tànn biir gi nan nga ko mënee ndax anooy jékki saa yi rek gis um mel ne ñi nga àndaloon masatule ndax xam dem ci umu carrément fàtte ñi nga àndaloon xari baaba nag nee na ko loolu maa ko def maa tey te bu jaroon defaat sax dama koy defaat ndax ci nga xam ne moo di umu man ak yaayam démb la ñu woon tey soogu ñëw umu kër gi ñu nekk rek def sëy boolewuñu lu ma neex laay def te lépp lu ngeen gis nag umu def ko wala mu wax ko maa koy influencé te maa tay lu umu def rek jàppaleen ni sama influence la maa koy def te maa tay te nag nee na ko bul fàtte nag ah, ba nga bala ba njëkkee fase man maa toogoon taxaw ba nga xamante ne ni yow seen génnoo kër gi demoo fenn kon nag boo fi taxawee naan ma bu la ba fase wut damaa neex kon jàppal ne weccet bi rek nga delloo ndax maa ko njëkk ko lebal bi ko waxee loolu nag nee na ko man nangoogu ma fi jëkkëru jàmbur waaye xarit baabu moom naa loolu miin na ko faaleetu ko kon nag ñi ngi dem ak yéen fii rek di leen wax ngeen di wéy di abonné di bës cloche de notification yi ngir ngeen di mën a jot suñuy vidéo comme ni ngeen ko bëggee jërëjëf